très rapidement résumer le match en 15 minutes pour euh, justement éviter de se retrouver dans une situation compliquée à devoir voilà, aller chercher un but dans les dernières minutes. Euh. Il va annuler le carton jaune et mettre le rouge, le numéro 7. Annulé, carton rouge. Ah oui, c'est ouais. le rouge. Ouais. C'est le rouge euh, pour Patrick Andrade à la 28 minutes. Pour kontaan sant yàlla bu baax ndax euh, ndam li moom neex nañu lool ñi ngi ñaanal suñu gaynde yi ndam li wéy ba ci finale bi ba ñu indi coupe bi ndax lu peuple bi yëpp namm la moo tax du ñu jug ci di nekk seen ginnaaw di leen supporter di leen encourager vraiment ñi ngi encourager équipe bi yëpp encadrement bi yëpp staff bi yëpp euh, en premier le président Macky Sall parce que quand Euh, def na état bi def na li mu waroon def yëpp pour que équipe bi nekk dans de bonnes conditions li si des jom ji joueurs yee ko war a mottali te lii dalal suñu xel mooy gis nañ ne ñoom ñoo ñu gën a bëgg victoire bi kon yàlla na leen yàlla taxaw jàppale leen may leen ndam rafetlu nañ bu baax qualification bi. waaw xam nga ñi ngi sant yàlla man lu tax may sant yàlla mooy keroog euh, bi ma voté ba pare dimanche 23 janvier. dama génn tasxatu xibaar yi laaj ma ay laaj bañ ma laajee dama leen ne ji ngi sant yàlla parce que bés bi ñu doon xaar yegg si na mais ginnaaw bés bi ñu doon xaar yegg si na ba ñu voté ba pare li ñuy ñaan mooy bu ngoonee ba résultat yi génn kenn ku nekk mën a nangu li résultat yi wax te bu ñu xëyee ci ëllëg sa ku ne nekk si sa mbiru bopp loolu laay sant yàlla ndax sunu borom may nañu ko élection bi jeex na ñun résultat yi ñu njëkk jot fii ci commune Sicap Liberté mi ngi commencé ñëw booru minuit mu nekkoon lu ñu xaw a jaaxal ndax jamais dans l'histoire politique du Sénégal du de Sicap Liberté toog nañu ba minuit pour am ay résultats loolu benn mbir la mais dans tous les cas résultats yi li mu waxagum ak mandataire yi ñu suñu PV yi jox mu nekk bien sûr des résultats provisoires mais jàpp nañ ne même bu dul provisoire bu résultat définitif yi ñëwee grand changement du ci mën a am mooy candidat Yewwi bi moo am ndam loolu nag ñu ko ci sargal di ko ci félicité loolu moo tax tamit tey bi ñu ñëwee fii ci fan zone bi di seetaan suñu match ñu ne ko na nga ñëw ndax yaay maire bi te nit ñi war nañ la xam mu ñu rafetlu aussi déplacement bi mu def mais lu weesu loolu également centre de vote euh, Sicap Liberté cinq centre de vote moo fi am centre de vote euh, euh, centre social Liberté trois a bi nga xam ne foofu la voté Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné ça c'est clair net et précis maintenant il y a beaucoup d'intoxication mais vous verrez les chiffres par vous-même maintenant am na yeneen mbir yoo xam ne gis nañ ko dinañ ko saytu ci suñu biir ndax loolu wàllu taxawaayu politique la moo tax ngay laajte ndax nit ñi taxaw nañ walla taxawuñu mais xam nga man li ma jàpp ci élection mooy élection citoyen yee ko moom su doon parti politique yi rekk nit ñi duñu gañe citoyen yi parti politique yi ñëpp ñooy dajaloo di fala ko folli kon li ñu jàpp tey duñu xool ci ku ñëw ak ku ñëwul ñun li ñuy xool mooy suñu taxawaay ñun coalition bi seqoon liggéey bi lañ ñu santoon lañ ci def te loolu Sénégal yëpp maase nañ ne mucc na ayib la preuve bi résultat yi génnee ba léegi askan wi yëpp ne résultat bu ñu mën a comprendre bu ne bu Sicap Liberté kenn mënu ko comprendre parce que l'affaire était pliée mais loolu ñun du suñu problème parce que ay citoyens lañ boole ci ñu gëm yàlla fi mu ne nii bi mu ñu mayee bi ñu paree ci élection yi ñu nekk ci leneen dañu sant yàlla maire bi nag dinañ ko jàppale mu liggéey parce que bu ñu ko jàppalee du moom lañ ko defal bu ñu jàppalee xale yi seen jàng gën a baax jàppale wér gi yaram bi jàppale entrepreneuriat local bi dañu jàpp ne ñu ngi jàppale président Macky Sall ci liggéey bi nga xam ne loolu la askan wi di xaar ci moom parce que les mairies c'est des démembrements de l'État kon ku jël mairie pour xeexee ko yaa ngi gaañ sa bopp les mairies sont des démembrements de l'État maintenant nag ñun waa Benno Bokk Yaakaar et man particulièrement bi nga xam ne maay candidate bi jiite woon liste bi jàpp ma ne dama perte man dama jàpp ne dama gañe parce que bu ma gagné woon élection bi ci période boobu nga xam ne coow li bëri na lool ku nekk naan ma danga nga transféré da nga sàcc mais même bu ma gañee du safe ndax nit ñi dañ naan dafa sàcc dafa transféré léegi nag ñi doon wax dañu sàcc ak dañu transféré nañu wax ndax résultat yi baax na am déet kon loolu victoire bi mooy loolu moom bu yeboo nëkk ñëpp tegati ci suuf acteurs politiques yi nañu responsable xam ne le système électoral sénégalais est transparent fiable et sincère su ko defee résultat bu mënati am nit ñi xam ne c'est la voix des urnes qui parle premier pas wu acteur loolu la war a doon donc vraiment ñun ñi ngi serein ñi ngi sant yàlla te nag coalition bi laxasaayu na de parce que dafa am yeneen échéance suñu kanam ñun ay acteurs politiques lañ dañuy job suñu job ñu nekk aussi des citoyens képp ku fi nekk maire ñun la fi nekkal dañ koy jàppale pour mu liggéey kon vraiment maa ngi dalal xelu maire bi ci ne danañ ko accompagner parce que xam naa ne buñ ko accompagner wul tamit dana jaxasoo ah. ville de Dakar ñàkk na ñàkk nañ ko dañ ko doon wut amuñu ko. loolu lu ñëpp constaté la constaté nañ ko ak sénégalais yëpp mais da ngay laxasaay combat foog mu am ku daan ak ku ñu daan maam bu am match nul jàpp nañ ne ci résultat yi ñu jotagum euh, dix quatre des dix neuf communes de Dakar ci ñun la nekk loolu déjà euh, yokkute la parce que élection yi passé benn commune la ñu amoon la laa am nañu quatre communes maintenant boo xoolee peut dans le cadre de la coalition globalement euh, am na lu ci wàññeeku mais il faut juste constater que gagné wuñ ko et puis gën a defarwaat pour liggéey ko y a pas de problème hein